asalaamaaleykum mbokk déglukat yi daleen nag jàmm ci seen émission allo docteur may nuyu suñu invité tey di professeur Philippe Marc Moreira professeur maa ngi lay nuyu. maa ngi Marie Rosalie. Uh-huh. tey nag euh, tey lu ñuy waxtaanee moo di euh, infertilité di jasir ak lu ñuy tuppee euh, procréation médicalement assistée donc auditeurs yi dama leen di présenter suñu invité di professeur Philippe Marc Moreira di gynécologue obstétricien nekk professeur titulaire des universités chef service gynécologie obstétrique médecine de la reproduction bu hôpital Dalal Jàmm professeur ma bàyyi la nga nuyoonte ak auditeur u Sud FM. maa ngi nuyu ku ci nekk ci auditeurs yi si sa tur ak sa sant euh, di la dalal si sunu émission bi. Mm-hmm. jërëjëf euh, tey nag comme niñ ko déggee auditeurs yi déggandoo ko noonu euh, mbirum infertilité maanaam jafe-jafe yi nga xam ne yenn couple yi dañ koy am ci wàllu am doom ak li nga xam ne moom mooy procréation médicalement assistée di benn xeetu ndimbal boo xam ne tam dafay jóge ci docteur yi ngir jéem ci indi pexe li ñuy. gën a euh, njëkk a ibi nag ci waxtaan gi mooy solos thème gi euh, professeur. maanaam euh, da ngeen bëgg a xam luy exactement infertilité. Mhm. alors ñun ci wàllu xam ngeen dafa am kuréel bu ñuy wax OMS mooy vraiment moo ñuy diggaate lu bare. OMS nag lu mu wax ci mbirum infertilité mooy bu fekkee dafa am ñu sëy at. ñuy sëy régulièrement te utiliser wu ñu benn méthode de contraception pendant un an te jotuñu ci am doom loolu la ñuy wooye ñun ci ñun infertilité euh, loolu OMS moo ko wax bu yàgg ba ñaari at la woon waaye léegi andi nañ ko ci benn at. Mhm. waaw ci kàllaama tubaab tamit dañuy dégg infertilité mais dañuy dégg aussi stérilité est-ce que ñaar yépp benn benn firi bi la. waaw xam nga stérilité mooy. Euh, benn état définitif maanaam kooku mënatul am doom mais infertilité mooy incapacité bu nga xam ne au bout mënoo am doom mais bu xasee ba wax euh, stérilité loolu mooy infertilité définitive. Mhm. maanaam mënoo am doom. maanaam pexe amu ci yoon pexe amu ci. waaw ñuy dégg infertilité jafe-jafe ci wàllu am doom. Mhm. xëy na causes yi bari na. mais yan moo ci ëpp yoo xam ne ñoom ñooy tax yenn ñi yenn couple yi di am jafe-jafe ak naka lay feeñee ci góor gi la wala jigéen ji naka la demee professeur. waaw boo xoolee euh, mbirum infertilité li di ko andi dafa am pàcc bu nga xam ne dañ ko ci côté góor bi la mun na nekk lu mot 30 pour cent am na pàcc bu nga xam ne si côté jigéen bi la moom tamit 30 pour cent la am na lu nga xam ne ñoom ñaar ñoo ko bokk am si problème mu nekk tamit 30 pour cent. mu des 10 pour cent bu nga xam ne bu nu xayma góor gi xayma jigéen bi duñu gis dara. Mhm. loolu la ñuy wax infertilité inexpliquée. léegi boo jëlee pàccu euh, jigéen ñi euh, mun na nekk lu bare mun na nekk butitu njurukaay bi moo bouché mun na nekk butitu njurukaay bi mu am yeneen xeetu feebar bu nga xam ne da koy tere euh, mu daal di accueillir nen bi. mun na nekk li ñu nit yi gën a xam mooy trompe yu bouché loolu yàgg na fi surtout fii si suñu jamono yi te loolu li koy indi mooy infection sexuellement transmissible yu nga xam ne loolu fajuñu ko bu baax day dem dem ba si yàgg dina indi ay butitu njurukaay yu nga xam ne dañuy bouché loolu tamit euh, lu nga xam ne bare na euh, en Afrique mun na nekk tamit côté ovaire yi maanaam fi fii muy nenal fi jigéen bi di nenal foofu tamit mun na fa am feebar. Mm-hmm. Euh, gàllankoor bi mun na tamit même ci. côté hormone yi maanaam lii nga xam ne day nekk ci deret bi di tax weer bu nekk jigéen gi di mun a am ay nen bu nga xam ne dina ci mun a joxe euh, lu nga xam ne euh, bu dajee ak walax jaan bi dina mun a nekk doom euh, côté góor gi tamit infection am na fa mais am na tamit lu nga xam ne maanaam góor gi li muy walax jaan bu muy defar foofu mun na fa am problème soit problème parce que moom mënul defar ay walax jaan wala daf ko defar ba pare mais fi mu war a jaar dafa bouché loolu tamit mun na am te loolu lu koy indi lu ci bari infection mun na tam indi ay malade génétique moo tax maanaam loolu daf ko jëlee si judduwaale bi lu ñëwee bon am na yeneen cause cause yi nag bari na mais pour simplifier mhm. yooyu la parfois nag mu nekk góor bi ak jigéen bi ku ci nekk am problème bu tuuti mhm. li ma tam wax un demi problème ak plus un demi problème boo ko defee ci mathématique mu nekk un problème mhm. moo tax dafa am solo bu ñuy euh, saytu ñu saytu ñaar yépp pour mën a am lu nga xam ne woon nañu ne lii moo tax te ñu mën ko faj. Mhm. waaw loolu dafa am solo tamit. waaw euh, est-ce que ci wàllu seen euh, gëstu yi ngeen di def en milieu hospitalier maanaam bërëb yi ngeen di fajee jot ngeen def ay gëstu yoo xam ne fësal na ay lim yu mën a natt ñiy ñëw en consultation. ci mhm. yéen mhm. ñaata ñoo ci am jafe-jafe am doom. waaw loolu nag. yàgg nañ ko saytu ñun en tout cas euh, maternité Dantec euh, boo xoolee dans les années quatre-vingt-dix. Mhm. déjà euh, commencé woon nañ ko saytu te eggoon na ba douze pour cent maanaam ñii di ñëw pour def consultation gynécologique douze pour cent li leen andi woon foofu mooy affaire wu infertilité maanaam jafe-jafe pour am doom. Mhm. loolu ci année quatre-vingt-dix la woon te te loolu du Sénégal rek seetlu nañ ko en Afrique. di ngay lim bi dina dem de quinze ba trente pour cent alors que ci yeneen dëkk yi lu mel ni Europe weesuwul dix pour cent loolu mooy lay wan ni infertilité loolu nekk na benn problème bu rëy ci suñu société. Mhm. parce que euh, boo jëlee ay feebar yu ci bare eggul douze pour cent ci consultation bi pourtant ñu ngi leen di dégg fu nekk ak ay programme ak lu nekk te pourtant bu ñu leen di xayma eggul sax douze pour cent ci consultation bi mais mbirum infertilité ak li mu ëmb. côté société moo tax peut du feeñ noonu mais c'est un vrai problème bañ na ko ba OMS nee na c'est un problème de santé publique et l'OMS daf ko reconnaître comme feebar comme yeneen fi ngeen di dégg paludisme ak yeneen yi jaasir dafa nekk feebar OMS dafa ne feebar la donc loolu moo lay wan ne loolu lu nga xam ne euh, dañ koy daje tout le temps si suñu métier mais euh, cas yi nga xam ne 12 pour cent yooyu nga xam ne ñooy ñëw di euh, saytu seen bopp est-ce que causes yi ñu identifié de façon général yi ci ëpp mën nañ ko xam. waaw comme ni mu la ko waxee euh, sànq causes yi c'est partagé dinañ ci bu yàgg ba dañu doon xalaat ne jigéen moo doon gën a nekk causes yi ci jigéen lañ koy gën a gis waaye léegi bi ñu demee ak médecine bi di avancé ak peut-être àdduna bi nu muy doxee. gis nañ ne góor yi ak jigéen yi ñoo yem ci affaire cause infertilité te loolu facteur bu important la te dinañ ci dellu siwaat ci ma ci traitement bi mhm. waaye wàllu góor yi dafa commencé yokk yokk bu nga xam ne sax dafa commencé indi yenn tiitaange yi loolu la nag xamaguñu lu tax mhm. waaye ñu ngi koy saytu am nañu ay piste mais leeragul mais lu ñu xam léegi te léegi ñu ngi koy gis boo gisee couple yi di ñëw mun nga nee ne moitié bi góor bi la moitié bi jigéen la te bu yàgg ba jigéen bi rek lañ doon xalaat mhm. waaw loolu moom euh, feeñ na trop. waaw balaa ñuy ubbi antenne bi ci cinq 825 18 30 pour auditeurs yi poser seen question euh, bëggoon naa xam professeur Moreira est-ce que euh, ci mbirum ñàkk mën a am doom infertilité dafa am symptôme maanaam dafa am ay mandarga yoo xam ne dafay mm-hmm. feeñ ci ku jigéen ki wala ci ku góor ki lu dul xëy na séntu séntu biir bu jóg wala ñàkk gis baax te ñàkkoo ko gis. wala signe boobu rek a ci am. waaw lu ci. maanaam euh, mooy lim la wax cest nit dañuy ànd sëy te duñu am doom loolu mooy signe bi mun nañ ko wax noonu. Mhm. léegi ñun bu ñu ñëwee di di faju ci ñun ñun dañ leen di enquête léegi ci biir enquête bi nag léeg ñu gis ay yu nga xam ne daf ñuy commencer orienter ci ay feebar maanaam ñu gis ne par exemple jigéen bi ni muy gisee règle mi normalul mu xaw ñu alerter dinañu poser tamit ay questions même ci biir. Euh, ci góor gi tamit au niveau des relations sexuelles nu muy demee est-ce que relation yi c'est complet loolu yëpp dinañ ko laajte dinañu xool tamit jigéen yi am na ay feebar yu nga xam ne dina feeñ ci yaramam yu nga xam ne comme ni mu la ko waxee sànq bu fekkee ay mbirum hormone maanaam ay lu nga xam ne day nekk ci biir deret bi pour moom mooy santaane pour affaire nenal bi bu fekkee loolu def si am jafe-jafe ñun am nañu nu ñu koy gisee ci yaramu nit ki buñ koy seet bu loolu weesoo buñ leen posé yenn question yi ñu daal di xool ku jigéen ki xool ku góor ki am na tamit ay analyses yu ñu leen di laaj pour compléter wala pour bu fekkee gisuñu dara ci examen bi. Mhm. ex euh, yooyu nag bu ñu ko defee bu ñu ko indee léeg mu won ñu nag fan la jafe-jafe bi nekk mais comme ni mu ko waxee euh, lu am solo mooy képp kuy faju pour bëgg am doom faju bi faju couple la. maanaam du faju jigéen bi rek. wala góor bi rek wala góor bi rek message bu important. Mhm. moo tax képp ku ci ñëw bu dekkee góor gi moo njëkk ñëw tamit wala jigéen bu njëkk ñëw dañ koy ne il nga àndi ki nga nekkal. Mhm. parce que euh, affaire u ëmb daje la daje la ñaari nit la mënul nekk benn. Mhm. loolu moo tax dafa am solo. kon dañuy ubbi antenne bi ci 33 825 18 30 pour euh, jël auditeurs yi nga xam ne bëgg nañu participer ci émission bi ñuy waxtaanee tey mbirum infertilité maanaam ñàkk mën a am doom ci couple yi ñi nga xam ne dañoo sëy ak euh, lu ñu duppee procréation médicalement assistée ñu ànd ci ak professeur Philippe Marc Moreira di gynécologue obstétricien nekk chef service gynécologie obstétrique médecine de la reproduction bu hôpital Dalal Jàmm waaw loolu nag 33 825 18 30 professeur Sànq li nga wax am na solo euh, dinañ ci ñëwaat ndax lu bari lu ñuy gis des fois da ngay dégg jigéen bu la ne sama jëkkër buggul ñëw consultation yooyu yëpp dinañ ci ñëw nañu jël auditeurs yi bëgg participer ba pare asalaamaaleykum. ñu ngi lay ziar sëñ bi. Euh, ñu ngi lay fay ndax mën nga yëkkati sa kàddu tuuti. ñu ngi lay fay bu baax. boo xam daf maa ma bàyyi la ak professeur bu fekkee amul leneen lu mu la mën a laaj. waaw. Euh, jërëjëf sëriñ bi ci ci sa question effectivement euh, li nga jot a wax bu fekkee 14 ans ngeen ànd donc yaa ngi effectivement ci contexte bu ñuy wax infertilité te ci li nga jot a wax bon euh, saytu nañ sa côté am na lu ñu gis mais pour ma mën la tontu yépp il faut que ma mun a xam-xam comme ni mu ko waxee sànq góor la ak jigéen la c' est est ce que si côté soxna si seetlu seetlu nañu ne dara jotu ko. boobu woon nañ ko nag wax dëgg yàlla depuis des yàlla mais moom léegi xam nga ko sel moom loolu mun na tax tamit euh, fi ñuy defaree walax jaan bi nga am fa jafe-jafe. loolu mun na tax euh, te am nañu tamit ay analyses yu nga xam ne mun nañ ko seet pour pour euh, xayma ko. pour xool fi mu toll loolu bu ñu ko defee analyse yooyu dinañ la mën a wax ah yow xeetu walax jaan bi nga am lii ak lii lañ si mën a def te euh, ci technique yooyu am na lu ñuy wax donc effectivement procréation médicalement assistée maanaam dañ lay dimbali pour walax jaan bi ak nenu jigéen bi mën a daje bu fekkee euh, ci ci ci yoon normal duñ daje am na pexe bu ñuy def pour ñu daje bu ñu dajee nag ba mu jàpp ñu daal di delloo nen bi nga xam ne jàpp na ñu delloo ko ci jigéen bi parce que bu fekkee euh, problème mu varicocèle mun comme ni mu la ko waxee mun na am jafe-jafe ci walax jaan bi donc walax jaan bi du doy te donc du mun a egg fi mu war a eggee parce que nit góor ak jigéen bu nu séyee walax jaan bi bu sotteeku fi mu war a dem dafa sore donc il faut mu ñu bare ñu am doole gaaw ba pare di dund donc loolu yëpp daf ci am solo bu fekkee benn ci yooyu daf ci am jafe-jafe mun na indi le fait que du ñu mën a egg fi ñu waroon egg mooy comme ñu ne woon rek dañuy def benn course dakaar ba Thiès xam nga bu ñu nee tey dañ daw dakaar ba Thiès maak yow du ñu xaw a egg de parce que bu fekkee du ñu entraîner tous les jours du ñu egg donc walax jaan bi il foog que mu am ay champion yu bare loolu la laaj. léeg bu ñu xawee nag nekk ko maak yow du ñu entraîner duñu dara loolu mën na andi jafe-jafe mais procréation médicalement assistée effectivement mun na la ci dimbali parce que moom technique bi ñuy def du soxla nga am walax jaan yu bare pour ñu mun leen teg moom ak nen bi bu ñu jàpp bu ñu jàppee nag ñu daal di ko delloo ci butitu njurukaayu jigéen gi loolu mën na am mais mënuma la wax ne loolu mën na régler sa problème parce que il faut ñu xam comme ni mu ko waxee yow sa situation xam situation ku jigéen ki xam atam ñoom moom tamit ñu xayma xool ndax nenam yi dina doy loolu yépp foog ñu seet ko loolu mooy procréation médicalement assistée benn processus la. waaw léegi su ma bëggoon a ñëw côté à dalal jàmm dalal jàmm moo nekk golf cité wetu cité Aliou d'accord moo nekk golf fële waaw d'accord d'accord d'accord waaw waaw. les wa foofu en fait c'est un hôpital public mm -hmm. alors il y a quand même un système d'organisation da ngay woote jël sa sa rendez ñu jël sa coordonnée comme ça bu su rendez-vous buy jot sax même bu fekk dafa am problème dinañ la mun a woo pour ne la changer nañu rendez mhm. mais am na numéro de contact ak yëpp pour mhm. jël rendez-vous c'est un hôpital public voilà donc su émission bi jeexee rek dinañu xool euh, ñi comme ni ñu koy tàmm defee ak auditeurs yi ban numéro lu ñu mën a bàyyi fii euh, pour ñëpp ñi nga xam ne peut-être soxla na nañu euh, am information yi gën a xóot soxal li ñuy waxtaanee tey ñu ngi lay jaajëfal bu baax professeur dina dellu siwaat ci li nga xam ne moom la joxe comme question wala contribution ñu jël beneen auditeur asalaamaaleykum. ñu ngi lay ziar sëñ bi. ñu ngi mhm. noo tudd wala fooy wootee. Omar Mbengue ñu ngi lay déglu waaye dëkk Tëngéej. Mm-hmm. ça va naka coono ñu ngi sant. ñu ngi kontaan di rafet. jërëjëf liggéey bi vraiment am na solo trop. Mm-hmm. vraiment yéen a ngi dimbali doomu aadama yi bu baax ci wàllu médecine. vraiment yal na leen yàlla jàpp. amiin amiin ñu gën a wëral cër yi. man damay laaj tuuti rek. Mm-hmm. mais normalement nit ñaata temps la war a mën a def pour boo soxnaam war a mën a am doom wala mën si war a jële ëmb. Mhm. ban temps la war a mën a def daal normalement si si yoon. waaw loolu daal laa amoon lu may poser question boobu. Mhm, jërëjëf waaw mhm, professeur dina la tontu ci kanam tuuti ñu jël euh, beneen auditeur ci cinq 825 18 30 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaw xanaa bu euh, jéem wootaat ñuy wootee dañ leen di ñaan rek ñu fay seen rajo comme ça déggante bi gën a neex ci 33 825 18 30 bu ñu bëggee participer ci seen émission allo docteur tey li ñuy waxtaanee mooy infertilité ak euh, procréation médicalement assistée ànd ci ak professeur euh, Morera professeur dégg nga kii lu mu wax sànq Omar Mbengue wootee te Tëngéej moom nee na ban temps mooy période en tout cas normal bi nga xam ne jigéen mën na ci jël ëmb. Mm-hmm. Euh, jërëjëf question bi am na solo euh, jë góor ak jigéen bu ñuy ànd ñun en tout cas lu ñu leen may mooy un an mais ci un an yi il faut ñu dëkk dëkk bi mooy lan dëkk bi mooy ñuy sëy régulièrement te sëy régulièrement boobu mooy pour ñun à trois fois par semaine pour mu leer ba pare bañ a utiliser benn méthode de contraception bu fekkee ñu ngi sëy ci loolu pendant ci diir boobu sans utiliser benn méthode de planning familial te amul te ëmb amu ci bu boobaa nag war nga consulter au bout de un an war nga ñëw seet docteur pour mun a xam lu tax parce que euh, euh, góor ak jigéen dañuy xalaat même fécondité nekkul lu kawe kawe boobu lu ñuy wax ci diggante mammifère maanaam entre espèce humaine la espèce animale yooyu yëpp góor ak jigéen l'espèce humaine ci boppam mhm. euh, boo ko xoolee pour mu am chance de grossesse jigéen par mois c'est à près vingt cinq pour cent maanaam du weer bu nekk la jigéen mun a ëmb. kon c'est pas systématique. ce n'est pas systématique c'est à peu près vingt cinq pour cent loolu moo tax ñu leen di may at ni ko tàmm wax couple yi vingt cinq pour cent mooy lan maanaam xam naa ñu bari xam nañu jeu bi ñuy wax lido. jeu boobu pour nga mun a commencer foog nga sànni ba am 6. bu ñu xalaatee ne 6 bi mooy ëmb xam nga mun nga sànni première fois am 6 dugg ci jeu bi am na ñu nga xam ne dañuy toog di xaar ngay def ñeneen yi di def ay tour ñuy sànni rek di am ay 4 5 ba ñuy soog am 6 gis nga dee boobu loolu 6 bi cinq pour cent de chance la donc il faut loolu moo tax ñu leen di may at parce que du weer bu nekk la jigéen mun a ëmb cinq pour cent rek par mooy. probabilité pour mu ëmb moo tax ñu leen di may un an mais au bout d'un an bu fekkee lépp dox na mun nañ ne quatre-vingt pour cent ba quatre-vingt-dix pour cent des couples am ñu sa benn doom. Mhm. ñi ci des il faut ñu xool lu tax amuñu. Mhm. voilà est-ce que euh, pourcentage boobu day varier en fonction de nit ki nu mu bindoo par exemple parce que da ngay dégg ñu ne kii jabaram elle est très féconde wala cette femme là elle est pas aussi féconde même bu defee contraception bu ko dindee il faut mu xaar plusieurs mois comment ça se passe. waa xam nga nit yi tamit yemuñu. Mhm. Euh, ba pare euh, côté jigéen dafa am lu am solo mooy mooy at yi ñu bare xamuñu ne jigéen entre dix huit ans ak vingt huit ans foofu la nga xam ne fécondité am fa la gën a kawe foofu lay gën a mën a am doom. Mhm. bu eggee vingt huit vingt neuf ans loolu day commencé wàññeeku ndànk-ndànk bu eggee trente sept ans dootul wàññeeku de dafay daanu carrément loolu moo tax ñu ne après quarante cinq ans c'est presque impossible de façon naturelle. Mhm. loolu il faut que nit yi xam ko. waaw ñu jël auditeur bi nekk en ligne euh, asalaamaaleykum. aleykum salaam. maa ngi lay ziar ñu ngi sant. Mhm. noo tudd wala fooy wootee. man maa ngi tudd Modou Fall laa tudd. ñu ngi lay déglu Modou Fall. Ah, maa ngi woote Kër ñu ngi lay déglu. maa ngi woote Kër Massar. dafa ni man ak njëkk a dugg ñoo sax. allo. waaw ñu ngi lay déglu. Ah, mhm. mhm. waaw ah, man defoon naa test yëpp sama jabar tam defoon na affaire bëtu dugub kaay yi xool affaire yëpp daal bañ ne ko yow amul benn problème. Mhm. man moom bi ma demee Pito wala demoon ñu xoolal ma urologue yi ne ma nga amee varicocèle demoon naa sax bëgg def opération bi par la suite daal ñu xawma ragal loo daal moom boo defee opération bi man nga see jógee dootoo nekk góor affaire yooyu daal. Mhm. waaw di tegtal ay comme fajkatu praticiens yi nii gis naa ay nit yi ñuy faj nag xañ na yàlla dafa dogal affaire bi ci ñoom daal. waaw may dem ci ñoom dem ci ñoom ba léegi daal mais dara sottiwul daal. Mhm. léegi ma bëggoon a xam comme que man Kër Massar ak euh, Dalal Jàmm soreewut ma jaaree commerce ñëw fa comme li nga wax léegi rek bu bàyyee ko fa côté mhm. ma jógee après ma ne moom pour xool ko ma ci yoon daal. Mhm. waaw ndax man maa ngi doon def ay analyse nag moo doon def ci pratique sain tam maa ngi def ay analyse toujours analyse euh, externe yi mais gis naa externe mi ngi doon yokk. mi ngi doon yokk mais pour ma. ñoo ma jabar jàpp daal xawoon na jafe daal ba léegi nii te tamit li ñu koy mhm. ma bëggoon daal mu xelal ma daal après. waaw kon xel la muy la muy jox. allah di sant baax nag mhm. jërëjëf Modou Fall professeur dina la euh, jox ay tegtal bu ñu xaar ndax am na beneen auditeur bu nekk ci ligne bi ci 33 825 18 30 bëgg a participer poser question wala contribuer ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey asalaamaaleykum. Ah, dafa mel ni rëcc na ñu may ko mu dugaat professeur ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar. maa ngi lay Zali Ndiaye. Mhm. El Hadj Touré Yara. waa kay El Hadj. maa ngi lay ziar bu baax nag. ñu ngi delloo ziar. di la dëkkal ci fête yi ñu nag. ñu mhm. nekk nii. jërëjëf El Hadj. waaw waaw merci ma la koy souhaité tamit quoi. dina mhm. la nit ku baax nga baax ku baax nga. maa ngi di nuyu Sud FM auditeur auditrice yëpp maa ngi nuyu di leen ziar. Mhm. maa ngi nuyu bu baax tonton di wax Cheikh Ahmed Tidiane Ndour euh, man lu ma doon laajte docteur mooy. Mhm. man man damaa gis euh, benn waay yor ñaari soxna. léegi mu nekk ak benn soxna gi quoi lu yàgg amuñu doom mu wut ñaareel mu am ak kooku doom léegi nag mu fase aaw bi ki nga xam ne mosuñu am doom. Mhm. kook dem ci feneen am am ay doom. affaire bu jaaxal ma lool lool lool mu doog mu bëggoon laaj docteur lan mooy waral loolu. Mm-hmm. te encore bon encore maa ngi ñaaxaat encore de plus encore sama mbokk góor yi. parce que am na loo xam ne encore bon ñaari couple bu ñuy demee bu amuñu ay ay doom dañuy war a dem kër docteur compagnie ñu seet seen bopp. Mm-hmm. parce yàlla mooy joxe doom moom encore dafa am sababu boo xam ne am na ci encore. ñu dem seetaat seen bopp moo gën xam sa nga yebal ndaw si encore ku góor gi yow naan ñu naan la demal après nga naan ko déedéet ndaw si la nekk man nekkul si man te encore te xooloo mhm. yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf jërëjëf El Hadj sa laaj bi professeur dina ci indi euh, a xoolaat euh, def. maa ngi lay ziar kooku. maa ngi lay nuyu di bu baax. ñu ngi lay ah, fay man la Abdou Sakkoor Pikine. ñu ngi lay fay Abdou Sakkoor. gëj maa woote trop mais maa ngi déglu sax ñu ma déglu leen. Mhm, jërëjëf. waaw waxtaan am na solo lool man dama amagul jabar waaye maa ngi déglu bu baax daal maa ngi ciy jàng bu baax waaye man kii laa leen ah, ko déglu ba <laughs> euh, nekkatu fi nekkatu fi yàgg na. ah nekkatu fi. non bien loolu dama gëj ko dégg ok jërëjëf mhm. ok jaajëf waaw ñu ngi jàngat baax mm-hmm. jërëjëf Abdou Sakor donc ñu jéem a seetaat euh, yeneen ñaar wala ñetti auditeurs yoo xam ne am nañu ay laaj wala ay contribution soxal lu ñuy waxtaanee tey ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si na ñu ngi lay ziar. noo tudd wala foy wootee. waaw monsieur Diop maa ngi wootee Dakar Plateau. ñu ngi lay déglu. waaw. en fait man sama laaj dafa jëmul ci en fait dama amoon euh, sama benn sœur. Mhm. waaw moom je pense mi ngi mi ngi ci ménage waaw mi ngi ci ménage ça fait presque dix ans. Mhm. waaw waaw wala du ko d'ailleurs. en fait toog na benn diire bu yàgg boo xam ni moom jotul oh. euh, jotul ko si grossesse daal maanaam. Mhm. xaw ma peut ñoom ni seen jëkkër di nekk à l'étranger souvent aussi. Euh, duñu faral di di di gisee lu bari mais yàlla def na aussi jël na fi ñaari yoon euh, grossesse mais bu ci nekk dafa dem ba en fait arrivé wul euh, au terme daal. Mhm. ay sept mois parfois ay cinq mois moom ay complications ba finalement ci avortement lay lay la aboutir. ma mhm. doon laaj nag ba xam loolu loolu lu ko waral daal maanaam en fait ba xam ci ku jigéen ki la wala maanaam ci ku góor vraiment. Mhm. parce que loolu daal xaw nañu def cas trop trop daal d'accord. waaw waaw dina la ci tontu incha allah. jërëjëf ci euh, laaj bi ñu jéem a xoolaat beneen auditeur bu bëgg a dugg asalaamaaleykum. oui asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaw ñu ngi lay déglu. waaw ñu ngi lay nuyu fay. waaw euh, amul benn problème. waaw daloon laaj docteur ba xam bu euh, góor ko amee hémorroïde ba xam loolu mën naa tere am doomu góor quoi. Mhm. allo. ndax loolu mën na tere ku góor ki mën a am doom. waaw hémorroïde waaw. waaw nañ la tontu. waaw loolu la ñu laaj docteur. ñoo ngi mhm. jégalu nag di rafetlu émission bi dina ñaanal bu du war a wér. amiin amiin. jërëjëf ñu jël benn auditeur bu mujj su ko defee ñu mën a bàyyi suñu invité tontu ci euh, laaj yi joxe orientation yi ci war asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Rosalie. waaw maa ngi lay ziar. na ñu ngi sant. Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. Mhm, ñu ngi lay teewlu Thiam. waaw di leen gërëm euh, Sud FM l'ordre national des médecins ak Val d'Afrique comme d'habitude. Mhm, jërëjëf. ñoom ñu may émission boobu. Mhm. waaw euh, di nuyu la Hadj Touré Ibou Ngone Mbengue ak euh, Bamba ñëpp daal tous les auditeurs daal bàyyiwuñu kenn. waaw di nuyu sa docteur boobu Moreira di ko sant bu baax a baax. man dafa am ñaari question yi ma bëgg a poser. parce que des fois da ngay gis couple boo xam ni sëy nañu lu yàgg amuñu doom après ñu séparé wu ñu séparé wu ku ne dem sa côté mais ku ne ku ne am doom damay laajte ndax ndax ndax dafay am des incon des conta. Euh, incompatibilité. waaw waaw incompatibilité ndax day am wala ci groupe sanguin wala seen la daal loolu daal yàgg na ma jaaxal ma bëgg ko laaj. Mm-hmm. waaw euh, deuxième question bi deuxième question yu fàtte naa ko de fàtte naa ko mm-hmm. waaw. waaw waaw maa ngi leen sant gërëm. jërëjëf Thiam waaw mhm, dañ koy yemaleegum fii rek appel yi su ko defee professeur Moreira mën na tontu auditeurs yi woote Modou Fall woote Kër Massar professeur nee na moom euh, problème euh, bi ki njëkk a woote bi auditeur bi njëkk a woote euh, moom la am nee na dafa amoon varicocèle def na test jabaram aussi def na test mais nee nañ ko amul benn problème moom nag nee na. déggoon na ñu koy wax ci wàllu opération sel di ko ragaloo ne ko mën na tax doo nekkati góor day wàññi sa ngóora ci loolu lañuy taxaw ba pare euh, professeur. waaw jërëjëf question boobu am na solo euh, ci ñaari fan naa ci ñëw benn bi mooy d' bari ko varicocèle ak bari ko d' abord moom mooy aloo lan. ko varicocèle dafa am ay ay veine sidit yu nga xam ne moom mooy jëm euh, fii ñuy defaree. Euh, walax jaan bi léegi léeg moom day dem ba day dilaté wu maanaam day yaatu ba nga xam ne du def liggéeyam. Mhm. bu ko defee euh, fi ñuy defaree walax jaan bi day am jafe-jafe alors suñu collègue ni ñuy wax urologue yi ñoom ñoo koy lijjanti opération bu nga xam ne maanaam lu opération bu simple la te opération boobu. amul tekkiwul dara ak nguur mënul yàq nguur ni kenn parce que ci sidit yi rek la liggéey donc loolu ma wax auditeur bi moo du Fall ne loolu moom bu fekkee jotoon na dem ci urologue ba waxtaan ak moom loolu ba waxoon ko loolu kooku dina ko ci génne woon te dina ko wanoon ne opération bi amul dara ak nguur boobu benn la te opération boobu mun na mun na ko dimbali parce que bu ñu ko xasee ba def après bu de bu defee ñetti weer dañuy xoolaat wallax jaan bi xool ban effet la am te loolu mën na tax walax jaan bi daal di amélioré wu donc loolu lu am solo la ñaareelu fànnu question mooy li ma ci neex nee na après dafa dem ay tradipraticien mhm. <laughs> pajum olof pajum voilà bu dul sax pajum wolof même boo demee ci yeneen docteur li ma bëggoon wax mooy mbirum am doom euh, dafa am temps gis nga temps bi bu passé ak lu ñu mënti def duñ ci mën a sore moo tax ñu ne dégg naa ku ne 14 ans nga sëy man loolu daf may jaaxal parce que ci njëlbin bi nee nañu boo toogee un an di sëy régulièrement te amoo doom mooy jafe-jafe am na mais ñun lu ñu gis mooy ñu bare dañuy def lu ñuy wax circuit thérapeutique maanaam. dañuy jóge fii dem fële jaaraat fii demaat feneen at yi di dajaloo. Mhm. te wax naa leen sànq ne góor du problème mais jigéen yàlla daf ko may ab diir pour mu am doom bu loolu weesoo day commencer compliqué te bu ñu demulee ci spécialiste depuis le début maanaam ñi nga xam ne au niveau de la médecine parce mën nga nekk docteur te bañ a nekk spécialiste affaire am doom am doom mën nga nekk sax gynécologue ba bañ a nekk spécialiste affaire am doom parce que ci biir gynécologue am na ñi nga xam ne dañuy gëstu mbirum cancer u jigéen mhm. am na ñi nga xam ne ñu ngi gëstu mbirum feebaru ween am na ñi nga xam ne ñu ngi gëstu lépp luy ëmb am ñi nga xam ne dañuy gëstu lépp luy ñàkk ëmb donc loolu puisque jigéen dafa am diir pour am doom il faut ñu dem directement ci ñii di ko toppatoo te damay ñaax ñëpp pour loolu boo dajee ak kaa yu mel noonu bañ a denc kaa bi lu yàgg di xalaat ne jigéen dafa am temps rek wax naa leen ne bu eggee vingt huit vingt neuf ans mu ngi affaire bi mu ngi commencé wàññeeku bu eggee trente sept ans waxuma la sax wàññeeku waaye li ciy des barewul. ñun lu ñuy gis mooy mooy lii ñi say dix ans quinze ans jigéen gi dem ba dépassé quarante ans am quarante cinq quarante six boo leen laaju ñu ne ah demoon naa diw doon naa faju fii doon naa kii mais ba léegi ñëwuloo ci ndeyu mbir mi te bu eggoo foofu neen ñi dara bare amatu fa ñu mën a liggéey ak neen ñi loolu moo tax ñuy message bi moo tax question boobu intéressé na mbirum am doom dafa am ay spécialiste wara ko ba gis leen. Mhm. parce que temps bi mooy problème. dafa am diir mhm. bu weesoo rek day metti te di investir lu bare pour faju te résultat bi du fa loolu moo tax euh, bi mu waxee dem naa si diw dem naa si diw ma bëggoon attirer attention message boobu la ñu te message boobu pour ñëpp la parce que ñu bare dañuy xalaat ne. jigéen tant que mu ngi gis baax mun na am doom mais dafa am période yu nga xam ne fa la gën a mun a am doom ak période yu nga xam ne. du yomb du yomb. ak boo xam ne dootul sax man a ne. dootul ma a ne loolu moo tax ma ne lii pratiquement c'est une course contre la montre. Mm-hmm. il faut que loolu tamit mu leer. Mm-hmm. te di nga préciser sànq aussi da am solo ku toog diiru benn at te gisoo dara. Euh, da nga war a jóg te dama ciy teg euh, laaj bi nga xam ne wala boog contribution bi nga xam ne moom la El Hadj jeexalee. Mhm. nee na souvent dañuy gis ci couple yi rétisance parce que bu ñu toogee séntu gisuñu dara rek dañuy ne soxna si mënul am doom te léeg-léeg sax souvent du nekk moom te même bu nekkee soxna li soxna si la sax. nem jëkkër ji ak jabar di ñooy wut doom ñoom ñaar ñoo war a ànd consultation souvent professeur est-ce que du loolu mooy indi retard bi naan duma dem dara jotuma wala xëy na ragal a dem ci góor ñi ñu ne la yow la te xam nañ ne socialement dafa am lu muy dindi ci dignité dignité nit voilà fi nga jeexale laay tàmbali effectivement suñu société euh, li ñu teg góor moo diis mhm. donc bu ñu nee waxu doom loolu day am confusion euh, mbirum doom utee na ak ngóore mais góor yu bare bu ñu leen nee demal faju wala gungeel sa jabar pour affaire doom ñoom dañuy xalaat ni comme que amuñu problème ci mbirum ngóor amuñu lu ñu fay def or affaire bi du mbirum ngóor rek affaire walax jaan la qualité wu jaan bi parce que nit mun nga sëy normal ak lépp mais walax jaan bi mën na am jafe-jafe donc loolu tamit foog ñu saytu ko te loolu balaa ñu koy saytu ñu def ay test loolu dafa am solo beneen bi mooy Euh, moo tax El Hadj di mhm. poser problème mu euh, divorcé après xam nga bi ñuy commencé nee naa leen euh, ñaari nit mun nañu ànd ñu am jafe-jafe te jafe-jafe bi ku ci nekk am na ci wàll mais ku ci nekk tuuti la ciy àndi mais boo leen boolee mu nekk problème bu rëy ñooñu bu ñu mun nañu ànd lu yàgg duñu am doom parce que ñoom ñaar ku ci nekk dafa am dara ñu daal di tàggoo ku ci nekk dem sëy mun nañ ci am doom lu tax parce que dañuy daje ak ku nga xam ne amul benn problème kooku mooy yombalal mbir mi waaye bu fekkee ñaari problème yu ndaw bu ñu dajee day nekk benn mais benn problème bu ndaw ak kenn ku nga xam ne amul benn problème doom mun na fa am. Mhm. loolu moo tax mu ne kooku dafa divorcé daal di dem sëy am doom mhm. te amul woon doom ak jëkkëram ci sëy bu njëkk bi voilà loolu mën na nekk mhm. tamit loolu sa nekkoon laaju ki nga xam ne mooy euh, Mohamed Thiam Malicounda mhm. donc je pense que tontu nga ko ci euh, beneen euh, laaj bi mooy bu monsieur Diop moom nekk Dakar Plateau nee dafa am sëram bu am 10 ans de mariage mais jëlul ëmb nee na xëy na li jëkkëram tukki ñu njott ko mais nee na ci diggante loolu jot na am ñaari grossesse yoo xam ne àggul ëmb bi dafa tuuru ba mu tollee ci juróom wala juróom-ñaari weer mu bëggoon xam loolu lan moo koy faral di indi est-ce que ci ku jigéen ki la wala ci ku góor ki loolu sax beneen xeetu problème lay la wax mhm. euh, sëram boobu mën naa ne sax ne am na chance parce que bu fekkee jëkkëram émigré na te mu ëmb parce que loolu tamit euh, problème bu rëy bu ñuy maanaam ñii am seen jëkkër nga xam ne nekkuñu fi nekk bitim réew euh, bu ñu ñëw di consulter ñun loolu moo tax dañ loolu la njëkk a laaj est-ce que am na cohabitation maanaam est-ce que jëkkër ak jabar ñu ngi ànd parce que léeg-léeg dañuy ñëw ne dañoo jaar si mais du loolu c'est que da ànduñu parce que si njëlbeen nee naa trois fois par semaine pendant un an loolu boo ko deful munoo munoo ne dama jaasir da nekkul ci condition donc ñun loolu la ñuy njëkk a saytu pour joxe ay conseil te léeg-léeg da ngay gis émigré day ñëw pour un mois ñu bugg ci am doom te nee naa jigéen weer bu nekk vingt cinq pour cent de chance kese la am léegi bu ñëwee ci weer bu nga xam ne nekkul weeram mun na ko dolli di ko dolli ay at di ñëw tabaski di ñëw tabaski mais du tombe ci weer bi ñu ne am na fi infertilité fekk déedéet c'est que dañu dëkkul lu doy mm-hmm. lu ñuy wax temps d'exposition moo doyul donc loolu benn problème bu nga xam ne dañ koy jë euh, moom la ñuy euh, gis souvent léegi mu ne euh, kooku jot na am ñaari ëmb mais daf leen perte mais fekk ëmb bi jotoon na sore ku am ñaari ëmb te amoo ci doom bu juddu ñun loolu lañ koy woowe infécondité bokkul ak infertilité kooku jigéen ñi de woon nañu saytu peut-être mbir mi mun na nekk ci doom bi mu yore mun na nekk ci moom donc war nañu mun a saytu pour xam lu tax parce que mun na fekk mu am feebaru tension ci biir ëmb. Mm-hmm. loolu mooy andi mu dem ëmb ëmb bi sore euh, xale bi daal di lor ci biir biir bi loolu mun na nekk xale bi tamit mun na amee tamit ay malformation donc loolu dafa soxla ñu saytu ko xool lu tax bu ëmbee ba sore. ëmb bi daal di taxaw loolu moom beneen problème la mais comme jot na ëmb te am jëkkëru émigré mën nañu ne sax kii moom wax dëgg yàlla am na ci chance. mais mhm. moromam yu bare ñu ngi fii ak sëy ak ay émigré am problème boobu. Euh, ma bëgg ñëwaat tuuti ci laaju Mohamed Thiam boobu ci affaire wu incompatibilité. li mu mhm. wax dëgg la am na lu ñuy wax infertilité d'origine immunitaire maanaan euh, góor gi ak jigéen àndunu Euh, walax jaan bi bu ñëwee ci jigéen bi jigéen bi dafay mel ni da koy delloo bugg ko parce que ñu seen kii méngoowuñu na am euh, mais loolu am nañ ci pexe am nañu euh, analyse yu ñuy mën a def ci walax jaanu góor bi pour gis ne loolu am na te loolu bu amee tamit am nañu pexe dinañu ñëwaat ci méthode pro technique de procréation médicalement assistée mm-hmm. benn ci méthode yi ñuy wax insémination loolu mooy mën a tax ñu faj loolu parce que dañuy jël walax jaan bi ñu daal di ko raxas génnee li nga xam ne day tax yaramu jigéen bi di ko rejeté loolu ñu génne ko ci walax jaan bi soo ko teg ci butitu njurukaakaayu jigéen ki loolu dinañ si dellu si waat. Mhm. auditeur bi ñuy mu jëlee mooy ki nga xam ne moo wootee HLM professeur di laajte ndax hémorroïde mhm. euh, mën na indi euh, infertilité ci góor maanaam ñàkk mën a am doom. déedéet hémorroïde amul dara affaire infertilité hémorroïde beneen feebar la hémorroïde euh, ay sidit la mais sidit yu nga xam ne euh, ci côté euh, lu ñu ne tube digestif maanaam intestin yi butit bokkul dara Euh, sëyukaay euh, mhm. kon nag dañuy fàttali auditeurs yi ñu dab ne ñu ngi suivre seen émission allo docteur tey ànd ci ak professeur Philippe Marc Moreira euh, di gynécologue obstétricien professeur titulaire des universités chef du service gynécologie obstétrique médecine bu reproduction bu hôpital Dalal Jàmm balaa ñuy ñëw ci ñaareelu pàcc bi nga xam ne ci la ñuy waxtaanee procréation médicalement assistée dañuy bàyyi waa service commercial jàllale seen publicité. festival da raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Valda Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur waa kay euh, professeur ñu ñëw ci li nga xam ne moom la ñu duppee procréation médicalement assistée bokk ci euh, benn xeetu pexe boo xam ne moom la ñuy jagleel moom la en tout cas ñi ko jàng gynécologue yi nga xam ne ñoom ñoo spécialisé wu ci mbirum am doom euh, moom la ñuy jagleel ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ci wàllu am doom ci seen couple loolu mooy lan PMA. waaw PMA mooy ndimbal mu nga xam ne muy gynécologue yi li ñuy wax tamit biologiste yi. mooy ñi di liggéey ci laboratoire euh, ñi di wax euh, ñu ñuy wax urologue maanaam entre guillemets gynécologue gu góor yi. mooy ñi di mm-hmm. toppatoo ay rawu góor yi. ñoom ñooy booloo pour indi ndimbal pour ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe am doom euh, ay technique la yu nga xam ne dina permettre ñi nga xam ne mënuñu am doom maanaam te. li tax ñu bañ a am doom soit parce que walax jaan ku góor ki ak nen bi mënuñu daje wala ku góor ki amul walax jaan yu baax wala ku jigéen ki nenam yi tamit dafa am jafe-jafe ñooñu ñëpp mun nañ leen ci dimbali technique yooyu yëpp la ñu boole ne assistance médicale à la procréation maanaam ndimbal kër docteur pour ngeen mën a am doom. Mhm. mun nañ ko wooyee noonu. loolu technique mu nga technique yoo xam ne yu am solo la te daf ñuy dimbali lu bare. Euh, bi ñu defee benn euh, saytu fii euh, ci maternité la Dantec boobu ñu ngi toll woon ci ay années entre les années mille cinq deux mille huit ñu daal di seet suñu bopp seet ñi di ñëw foofu pour affaire jaasir ñu gis ne bi ñu gisee xool saytuwee seen problème presque quarante pour cent PMA moo ko mënoon régler parce que jéem nañu def traitement yu ñu amoon. ci jamono yooyu maanaam di opérer di joxe ay garab mais biñ ko defee loolu ñi jot a am doom dépassé wul sax 4 pour cent ñu gis ne ni ñooñu bu fekkee joxoon nañ leen possibilité ñu am lu ñuy wax euh, technique PMA ñooñu mun nañoon dañuy jóge ci 4 pour cent egg ba vingt 28 pour cent xam nga ne loolu lu mhm, bari la. te boo xoolee. vingt huit pour cent mooy taux de réussite te sànq wax naa leen ne jigéen pour muy ëmb par mois vingt cinq pour cent paiement dem na sax ba vingt huit pour cent donc loolu lu am solo maanaam dépassé na fécondance naturel donc mun na dimbali ñu couple yu bare alors paiement nag euh, technique la technique médical bu nga xam ne dafa am lu bare ñu ciy def loolu moo tax peut-être yombul mais euh, Sénégal quand même euh, depuis les années mille 2013 même avant même en mille 2008 commencé woon nañu mais ci deux mille 2013 la vraiment euh, lañ ci jublu bu baax te lu nga xam ne mu ngi dimbali ay couple yu bare fii ci Sénégal. Mm-hmm. waaw mën nañu xam yan différentes euh, techniques la ñuy utiliser wala benn pexe rek benn stratégie rek moo am pour appliquer lu ñuy wax paiement wala dafa bëri yoon. waaw euh, yoon yi ñett la am na bu njëkk bu ñuy wax insémination insémination mooy lan mooy jël walax jaan bi euh, préparer ko de telle sorte que comme ni mu ko doon waxee sànq. Mm-hmm. champion yi xaw ci bare ñu concentrer leen. maanaam walax jaar ñu gën a baax yi ñu daal di leen concentré ba pare ñu daal di koy teg ci butitu njurukaayu jigéen gi ba pare loolu mooy gàttal yoon bi nga xam ne normalement walax jaan bi yoon boobu lay jël pour egg ci nenukaay bi ñu daal di ko gàttal parce que dañ koy dugal directement ci butitu njurukaay bi mu daal di jege nenukaayu jigéen gi euh, technique boobu euh, du lu nga xam ne dafa metti dafa laaj rek euh, ku jigéen ki butitu njurukaay bi bañ a bouché mu dal di mun a am ay nen. Mm-hmm. ñu mun koo dimbali tamit mu am ay nen yu wóor euh, ku góor ki tamit euh, walax jaan bi il faut pas tamit walax jaan bi daal di néew néew yenn néew doole daf walax jaan bi day fekk mu am tuuti jafe-jafe loolu mooy insémination te loolu boo ko defee mun nga. egg sax ba ay dix huit pour cent de réussite donc xam nga ku jóge zéro ñu yóbbu la ba dix huit ci lu nga xam ne lu nga jafewul noonu loolu lu baax la ñaareelu euh, technique bi mooy li ñuy wax fécondation in vitro conventionnelle loolu mooy lan euh, loolu par exemple bu fekkee jigéen bi butitu njurukaay bi dafa bouché maanaam tromp yi mooy fii nen bi ak walax jaan bi di daje mu daal di bouché ndax li mu ko waxee sànq ay séquelles infection ak yooyu xam nga loolu mënatuñu def insémination parce que lu ñu mën a gàttal gàttal yoon bi mënuñu daje. Mm-hmm. bu boobaa dañuy jël walax jaan bi jigéen gi ñu jox ko ay garab yi nga xam ne pour mu woon nañu ne dina am ay nen yu doy ñu daldi jël nen yooyu boole ko ak walax jaanu jëkkëram daal koy saytu ci li ñuy wax microscope. bu jàppee daane dañuy leen di boole ñetti fan ñu xool bu ñetteeli fan bi bu fekkee jàpp na ñu daal di ko jël deeloo ko ci butitu njurukaay bi jigéen gi ëmb ëmbam loolu mooy ñaareelu technique bi euh, moom tamit dina egg ba ay vingt cinq pour cent mais am na beneen troisième technique bu nga xam ne kooku nag moom moo changé lépp gën a jox chance mooy li ñuy wax micro injection micro injection lan la loolu day fekk daf ñuy dimbali trop ci euh, walax jaan yu néew néew doole parce que boobu soxlawuñu walax jaan bu bare parce que nen boo jël dañ ciy dugal benn xam nga euh, ëmb pour mu am il faut benn ci walax jaan bi dugg ci nen bi mm-hmm. donc ñun loolu mun nañ ko def ci laboratoire maanaam dañuy jël benn dugal ko ci nen bi seet ndax dina jàpp donc xam nga loolu loo am ay walax jaan yu bare boobu mooy micro injection loolu moo tax tey boo gisee ñuy wax succès wu fécondation in vitro tamit loolu la parce que bu yàgg ba bu fekkee góor bi walax jaan bi dafa néew néew barewuñu ci woon pexe parce que loo ko boole boole ak nen yi léeg du du jàpp donc loolu mooy micro injection moo tax ba léegi ñu ngi dem ba ay vingt huit trente pour cent de taux de réussite ci nga xam ne amuñu woon chance. Mhm. donc mooy ñetti technique yooyu. Mhm. Euh, professeur kan moo mën a bénéficier wu ci euh, procréation médicalement assistée euh, parce que sànq yaa ngi ne dafa am temps. Mhm. est-ce que day jël en compte âge jëkkër ji ak jabar ji wala naka lay demee wala képp koo xam ne dund nga ko rek jafe-jafe am doom boo ñëwee war nga ko mën a bénéficier wu. waaw lu ma bëgg a njëkk a leeral mooy ñi ko mën a am fii Sénégal en tout cas. mooy des couples légalement mariés. Mm-hmm. mu leer maanaam góor ak jigéen légalement mariés parce que Sénégal def na tëral na loi bu ñu wax loi sur la santé de la reproduction ñu voté ko en 2005 c'est la loi 2018 du 5 août 2005 loi boobu mooy permettre d'abord loi bi dafa ne couple boo gis Sénégal. am na droit am doom ba pare mu yokk ci ne su fekkee dañ ko bëgg am nañu sañ-sañ laaj pour ñu defal leen procréation médicalement assistée loi boobu ñu ngi ko voté depuis 2005 article 6 bi exactement mooy wax moom moo wax ko ci français parce que peut-être mënuma ko dans mhm. le respect de l'éthique maanaam dans le respect de l'éthique maanaam fii nga xam ne moral may na ko suñu société ak sañ-sañu docteur yi fu mu mun a yem couple bu nekk am na droit bénéficier bu ko laajee technique u procréation médicalement assistée loolu mooy benn bi donc du ñëpp mhm. il faut mu leer parce que li ñuy dégg dafa bare mhm. du ko toog rek bëgg am doom li ñuy dégg mhm. bitim réew Mm-hmm. mënuñu ko andi fii Sénégal. effectivement Sénégal c' est un pays de valeur. Mm-hmm. et de loi donc loo gis ñu def fii dañ koy teel a encadrer te loolu suñu autorités yi dañ si teel a jóg pour justement ñu bañ daje ak liy xew ci yenn réew yi. Mm-hmm. léegi bu ñu génnee ci loolu ñu ñëw ci couple bi euh, ni mu ko waxee problème bi mooy euh, dafa am temps pour def loolu. lu tax ma dellu siwaat parce que loolu tamit benn message bu important maanaam jigéen li mën-mënam pour am doom dafa am diir euh, boo PMA tamit c'est la même chose bu fekkee jigéen parce que jigéen euh, bu commencé gis ay baax maanaam ay bu amee ay douze treize ans yàlla dafa def ne daf ko jox ay nen bu nga xam ne moom la war a utiliser pour mën a ëmb ba fi muy yem maanaam ménopause waaye moom dafa am capital dootu ci yokk te dara te ci tubaab ça fait quatre cent mille ovules à peu folicule mu ñu ko follicule lañ koy wooye maanaam nen li nit jotee nen yi moom da ciy am quatre cent mille fa la yem loolu la mën a utiliser pour am doom waaye problème bi mooy chaque mois saa yu gisee règle am na yu bare yuy dem donc plus muy dem ci at mooy comme li nga teg banque rek bu fekkee chaque mois yaa ngi dem di retirer. Mhm. bu yàggee du desati dara. Mhm. loolu la te jigéen ba vingt huit ans foofu moom la gën a mun a am doom vingt huit ba trente sept ans mun na am mais commencé na wàññeeku bu weesoo trente sept ans wàññeeku moom wàññeeku bu am doole bu takku la loolu mooy ku bugg a def. tamit technique ANP yi mooy fécondation in vitro da nga am temps pour def ko mais boo dépassé déjà au-delà de quarante ans résultats yi ñuy am bokkatul loolu tamit il faut que ñëpp xam ko. Mhm. plus nga gën a teel ñëw plus nga am chance loolu moo tax ma ne dama solo ñu teel a gis problème bi mais surtout. nga teel a dem fi nga war a dem mais ñun lu ñuy gis mooy ñi nga xam ne wër nañu àdduna bi yépp ba amatuñu benn espoir. Mhm, mujjee ci ñu dégg ne waaw fii ñun lan la ñu mën a def. li ma tàmm wax nit ki ma ne ñun duñu yàlla de. Mhm. yàlla rek mooy moo mën donc li ñuy ñaax déjà loolu information boobu képp kuy jigéen war nga ko xam mais doom dafa am diir. bu weesoo day dif day metti loolu tamit lu am solo la moo tax yenn dëkk yi sax nga xam ne ñoom booy dem di def fécondation in vitro gouvernement bi moo la koy fayal te dalay ne mun naa la fayal ba ñetti yoon tant que egguloo 42 ans boo weesoo 42 ans yaay fayal sa bopp lu tax parce que li ñu nar a teg ci xaalis. Mm-hmm. te duñ ci gis résultat dafa bare moo tax. bu weesoo 42 ans yaay fayal sa bopp donc loolu dafa am solo d'abord il faut être en couple légalement marié mais aussi côté médecine bi il faut tamit nga bañ am yenn at yi loolu dafa am solo. Mhm. waaw euh, grossesse boo xam ne euh, ñu ngi ko jëlee ci procréation médicalement assistée mooy PMA. est-ce que suivi grossesse boobu wala boog euh, tëralinu grossesse boobu dafay nekk même chose ak grossesse bu naturelle jigéen bi mën na ko dund normalement comme beneen jigéen boo xam ne dafay yem xëy na ci ay visite prénatale am ci garab yi ñu ko bindal ak analyse yi ñu ko jox rek. waaw effectivement day nekk grossesse normale normal mais dafa war a am un suivi tamit régulier comme toutes le grossesses loolu la ñu santaane fii Sénégal. Mhm. xam nga léegi Sénégal nee nañu ne. Euh, visites yi weer bu nekk la war nga mën a dem ba am huit visites ci sa ëmb weer bu nekk war nga dem bu yàgg ba dañu doon ne chaque trois mois mais léegi weer bu nekk bon boo defee visite boobu amul benn problème suivi normal am na tamit ñu di mais doom yi di juddu ci technique yooyu est-ce que xale yooyu dañuy normal loolu étude yëpp wane nañ ne dañu normal amul benn jafe-jafe ci loolu. Mm-hmm. kon nag dañuy ubbiwaat antenne bi ci 33 825 18 30 balaa ñu jël auditeurs yi nekk ci ligne bi ci 33 825 18 30 professeur Moreira est-ce que paiement euh, pour euh, jot yi dafa dafa cher coût euh, traitement boobu noonu. waaw léegi euh, effectivement li ma wax lépp xam nga mbirum laboratoire am na ci mbirum surtout garab. Mhm. parce que garab yi ñuy joxe pour. jigéen ki am ay nen yu doy garab yooyu nag dafa cher malheureusement euh, loolu moo tax euh, accessibilité maanaam ñi ko mën a def boo xoolee fii Sénégal ak seen poche peut-être du bare noonu te pourtant ni mu la ko waxee sànq bu ñu xaymee couple yi di ñëw te soxla loolu dina mot ay trente cinq ba quarante pour cent nga xam ni soxla nañ ko. te ci étude boobu ma la doon wax bi ñu laajee jigéen yi waaye yéen est-ce que bëgg ngeen PMA quatre-vingt pour cent ñu ne ñoom bëgg nañ ko waaye ay vingt-cinq pour cent rek ñoo ne mën nañ ko. Mm-hmm. loolu moo lay won problème bi te mbirum doom euh, ci suñu societé ñun euh, lu lu lu doy waar la euh, maanaam stress bi muy indi Euh, dépression parce que ñun def nañu étude suma collègue professeur Soxna Seck bu psychiatrie defoon na fi benn étude bu am solo si ñun mu wone muy góor muy jigéen problème psychologique yi ñuy am ndax ñàkk am doom problème yu tar la sax euh, am na sax ñu nga xam ne euh, gëstu nañ ko ñu ne ñàkk am doom lu muy àndi ci dépression ak souffrance moo yem ak niveau de dépression ak souffrance ñi am cancer dafa fekk rek ñoom duñ ko mun a wax duñ ko mën a exprimer mhm. mais booy déglu témoignage yu jigéen yi da ngay xam ne lii lu metti la moo taxit ñun tamit tooguñu noonu état bi jéem na ci gëstu pour seet nu mu koy àndee ba niveau le plus bas pour ñi nga xam ne amuñu trop moyen ñu mën ci jot. Mhm, d'autant plus que OMS nee na c'est un problème de santé publique. effectivement. Mhm. te boo xoolee effectivement fii Sénégal ñu ngi koy def dans le cadre euh, de la médecine privée loolu am na fi euh, depuis 2013 ñu ngi koy def fii ak benn laboratoire ak ay gynécologue ak ay urologue euh, ci benn euh, kuréel bu ñuy wax fii Sénégal. Euh, am ci tamit ay macha allah ay succès. Mm-hmm. parce que bi ñu defee benn étude ci suñu résultat yi ñu daal di ko comparer ak résultat wu waa France ñu yor même taux de succès que la am muy vingt huit pour cent. Mm-hmm. mais problème bi mooy ñi ci mun a jot barewul ma bëgg a anticiper xam naa question bu may laaj te auditeurs yi xam naa dinañ ma ko laaj. Mm-hmm. ñaata la. alors. processus pour def PMA dafa mel ni dafa gudd dina jëlu à peu près un mois ci biir un mois bi am na ci ay préparation am na ci ay analyse am na ci ay pikiir am na ci ay surveillance échographie am ci lu ñuy jëlee nen bi jël walax jaan bi boole leen am na ci deeloo bi ci butitu njurukaay bi loolu yëpp boo ko gisee xam nga du lu yomb Euh, mun naa ne actuellement benn tentative euh, ça peut entre deux millions et deux millions cinq mais si deux millions yi ou deux millions cinq partie bu ko jën am solo mooy garab yi moom moo gën a cher loolu nag mun nañ ci dara garab bi moo cher ci boppam. Mm-hmm. waaw ma bëggoon balaa ñuy euh, euh, commencé jël auditeurs yi nekk ci 33 825 18 30 xam euh, jigéen ñaata yoon la mën a recourir ci paiement pour mën a am doom. amul limite. tant que waaw en fait. lu ma waxoon sànq mooy mbirum age bi. Mm-hmm. parce que booy def paiement dañuy njëkk am lu ñuy saytu ci ci yow muy góor bi mooy wadax jaan jigéen bi dañuy saytu lu ñuy wax ñun ci réserve ovarienne maanaam. li ko desee ci nen te dafa am fooy tollu ci sa réserve bu fekkee sa réserve dafa wàcc ba wàcc du ñu nangu sax nga def PMA parce que nit ki tamit doo ko dépensé loo te xam na ne résultat bi du bare mhm. donc ñun dafa am yu ñuy bañ donc am na benn limite boo fa tolloo dina la ne ah yow de si li la desee mënu la permettre nga def parce que li nga nar a teg te doo ci am résultat li nga nar teg dafa nar a bare te doo ci am li nga bëgg loolu tamit lu am solo. Mhm. kon nag 33 825 18 30 ci auditeurs yi nga xam ne bëgg nañu ba tey dugg ci émission bi participer ñu jël ki dugg ba pare. allo asalaamaaleykum. waay salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si euh, ñu ngi sant ñu ngi lay ziar. waaw dama bëgg a egg ci émission bi. Mhm, professeur mu ngi lay déglu. voilà professeur laa bëgg a laaj euh, bu fekkee ne dañ ko bëgg a contacter. Mhm. wala ñu bëgguñ koo seet wala ñu xam wala fan lañ ko war a mën a fekk mën a waxtaan ak moom. Mhm. waaw loolu loolu li may suivre émission bi. Mhm. waaye ay coordonnées bi laa bëgg wala nu ñu war a mën a def contact ko wala fu ñu mën a fekk. d'accord. waaw. Mhm. dina ci indi tontu incha allah. kon ñu jéem a seetaat beneen auditeur ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. maaleykum salaam Marie Rosalie. Mohamed Thiam moo ñëwaat. su ma naa ko. waa kay. waaw euh, dama doon laaj euh, déjà déjà dama naan docteur. ki mu wax nii pour euh, pour dimbali nit boo xam dafa am difficulté pour procréer. Mhm. ñu ñu dimbali ko ba mu am ba mu am doom déjà nee na deux millions à deux millions cinq cent. Mhm. donc ça coûte un peu kon loolu rek damay wax mu delloo nit ñi xel ñoo xam ne yàlla may na leen ñu mën a am doom facilement te loolu yëpp ñu ci jaar. ñu toppatoo seen doom yi parce que am na chance boo xam ne am nañ ñeneen ñu ko bëggoon tey amuñu ko. Mhm. kon ñooñu ñooñu nañu xool si ñooñu pour bu la yàlla mayee mu yomb lool si yow nga toppatoo ko. Mhm. bon deuxièmement dama la laajte euh, parce que je suis un éleveur de mouton. Euh, euh, d'habitude semaine bii rek déjà am naa am naa xar bu jigéen bu am doom mais après dama ñëw fekk kii bi bu tuuti jurukaay bi dañaale quoi. ko allo mhm. waaw waaw. voilà c'était vers trois heures du après jéem naa ko kii mënuma ci dara ma woo vétérinaire yëpp war naa ñetti vétérinaire ba huit heures du matin moo dama leen jot. Mhm. mais après dafa mujjee kii dafa mujjee kii waa dafa mujjee dee sax waaw léegi damay laajte loolu loolu est-ce que est-ce que dina arrivé ci nit nit loolu laay laajte parce que mhm. d'habitude d'habitude ma seetlu naa ku si arrivé ci mouton yi ci day nekk day nekk mouton boo xam ne bon boo xam ne elle bien nourrie. bon peut-être mu pousser pousser bu ëpp affaire bi décollé wala mu nekk bu faible boo xam ne amul doole pour pousser. Mm-hmm. léegi peut-être peut-être peut-être si nit boo gisee lu bari mooy lu leen assister médicalement ko mm-hmm. ñu sonn sonn boobu loolu daal laa doon laaj docteur nan lay arrivé lan mooy cause daal. Mm-hmm. macha allah merci d' jërëjëf Thiam donc ñu jéem a xoolaat euh, beneen auditeur ci vingt 33 825 18 30 ñu mën a euh, participer contribuer wala poser question soxal tey li ñuy waxtaanee di PMA ak infertilité asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. salaamaaleykum. Ah, maaleykum salaam. waaw soxna si na def. Euh, ñu ngi ziar est ce que mën nga wàññi sa rajo tuuti rek. waaw yaa ngi may dégg. man ngi lay dégg bu baax. waaw damaa am man soxna soo xam ne mane ne. Mm-hmm. damaa am soxna soo xam ne am mas na am doom. Mm-hmm. waaye xale bi am na fukki at xale bi am na fukki at ni mu ngi jàng. waaye ba léegi nii amaatagul beneen loolu laa doon xalaat maanaam fan lañ mën a fan lañ ko mën a gisee moom. Mm-hmm. fan lañ ko mën a fekk Dakar fu mu nekk maanaam ñu xamay coordonnées ba mën koo gis indil ko ko mu xool ko ba xam. waaw dina la ci tontu dina la ci tontu. Hmm? dina la ci tontu. waaw maa mhm. donc ñu jëlaat euh, yeneen ñaari auditeur su ko defee ñu mën a bàyyi professeur tontu ci laaj yi 33 825 18 30 asalaamaaleykum. Euh, ñu ngi lay ziar sëñ bi. est-ce que mën nga yokk sa kàddu tuuti. Mhm, ñu ngi lay déglu. allo. waa ñu ngi lay dégg bu baax. waaw la ma doon laajte euh, ci wàllu euh, ñi nga xam par exemple ñu euh, par exemple dañuy def césarienne te li ñu koy def dafay répété wu lu bëree bëree bëri. Mm-hmm. loolu yan conséquence la am maanaam ku ko def deux fois ba trois fois boo ëmbaatee loolu dana am ay conséquences ci yow wala déet. Mm-hmm. waaw ak ëmb ëmb ak par exemple ñi nga xam ne dañu amee tension par exemple hypertension ñu ëmb. loolu tamit lan mooy conséquence bi. Mhm. waaw loolu jërëjëf donc ñu jël euh, auditeur bi nga xam ne euh, moom mooy euh, mujj su ko defee ñu mën a bàyyi professeur Moreira mu tontu asalaamaaleykum. waaw xanaa ñu may ko mu duggaat rek professeur sinon ma bàyyi la nga njëkk a tontu ñi nga xam ne duggaat nañu sànq ki doon laaj naka la ñuy def pour contacter la xëy na ci fin émission bi. comme ni ma leen ko waxee rek dina am benn numéro bu ñuy bàyyi fii pour euh, ñu bëgg a jël rendez-vous ak orientation dinañ ko joxe ci fin émission bi incha allah bu ñu wootee ci numéro bi ñu wootee pour dugg ci émission bi 33 825 18 30 ki ñu jot dina leen tegtal numéro bi euh, Thiam Malikounda euh, ci Chera bi wax na ci wax aussi contribution pour ñi nga xam ne yàlla yombalal na leen ñu mën a am doom. ñu sàmm seen doom yi leneen li mu doon wax mooy li mu gis ci euh, ay benn xaram ne utérus bi dafa génn bi muy am doom est-ce que loolu mën na dal jigéen mais nga may ma ma jël auditeur bu mujj bi asalaamaaleykum. waa asalaamaaleykum. waa yi ñu ngi lay dégg bu baax léegi. waaw waaw leen di nuyu di émission bi. ñu ngi lay fay. waaw di jégalu nag ngeen baal ma kii bi dafa am benn question ma laaj bëggoon laaj ci docteur rek. Mhm. Mhm. ñu def opération ñu dindil ko benn trompe bi. mu dem ba am 6 mois bi daat ëmb. Mhm. ndax grossesse boobu à risque la wala du à risque. Mhm. waaw extra utérine. mu dem ba ñu dégg ko benn trompe bi au bout de six mois mu jëlaat grossesse ndax à risque la wala du à risque. d'accord loolu ma nekkoon question bi. dina jërëjëf. Euh, professeur ñu ñëw ci Thiam euh, Malikunda ndax jigéen mën na toll foo xam ne muy am doom ba butitu njurukaay bi génn ak bu amee tamit lan moo koy faral di waral. merci euh, li muy li mu wax noonu am na effectivement ci jigéen ñu ngi koy wooyee inversion utérine loolu am na ci accouchement bu xale bi génnee ba pare butitu njurukaay bi àndaale daal di wëlbatiku. génn loolu urgence bu grave la euh, parce que day indi du ñuy wax ñun état de choc ci jigéen ñi il faut ñu lijjanti ko lu gaaw a gaaw euh, mais normalement bu fekkee loolu jot na am euh, gynécologue bi xam na nu mu koy lijjanti am na ay manœuvres yu mu mën a def pour delloo bu tituñu rukaay bi parce que il faut mu def ko lu ci gën gaaw parce que bu ko defulee lu gaaw gaaw moom sax gis na ko ci li ko dal ci kii bi day gën a plus temps bi dem plus mu metti delloo mun nga sax euh, yenn yi dem ba ci opération bu fekkee danga nga échoué ci delloo euh, ak sa loxo bu titu njurukaay bi ci biir loolu day am te urgence bu grave la. Mm-hmm. Euh, ci mbirum wax na tuuti ci affaire coût bi mais je pense que dinañ si delluwaat parce que effectivement wax naa coût bi waaye. ni mu ko waxee sànq suñu autorité yi tooguñu. Mm-hmm. ñu ngi doon ut pexe parce que boo xoolee PMA euh, lu ci bari ci espace privé la am surtout en Afrique mais euh, boo xoolee même si suñu sous-région amul centre publique mais état bi mu ngi ciy gëstu te defe naa euh, bu ci kanamee dinañ ci dellu si waat mm-hmm. pour joxe. xew-xew bi am Sénégal. waaw mhm. keneen ci wootee Daaru Xuddoos nee na dafa benn soxna boo xam ne mës na am doom xale bi am na fukki at nag waaye mën amul rak maanaam soxna si mënul jëlaat ëmb. Mhm. waaw loolu mën na am mooy li ñuy wax ñun infertilité secondaire maanaam jot nga am doom après nga daal di taxaw loolu dañ koy nañ ko toppatoo parce que il faut ñu xool ba pare lu tax mu taxaw am na ay il faut ñu saytu ko saytu jëkkëram comme ni mu ko waxee. Euh, def ay analyse ba mun leen wax lu tax mu taxaw. Mhm. waaw loolu moom moo li ñuy wax infertilité secondaire parce que mun ñaari xeet la infertilité bu nga xam ne ci njëlbeen bi la ci jëkkër ak jabar ak ñi nga xam ne secondaire maanaam dañu jot am doom ba daal di après ñu daal di taxaw. Mhm. bokkul. waaw euh, césarienne répétée deux à trois fois euh, est-ce que dafa am conséquence am na njeexital. waaw xam nga médecine day évoluer bu yàgg ba césarienne opération bu compliqué la woon. waaye léegi ak euh, médecine bi nu muy doxee ñu daal di def ay progrès maanaam ci mbirum technique bi ñuy opérer mbirum anesthésie mbirum garab yi ñuy joxe ci surtout antibiotique léegi euh, gën na yombal césarienne bi tey euh, jigéen mun na def césarienne plusieurs fois il suffit que à chaque fois bu defee césarienne buñ koy def ñu daal di vérifier ne bu njurukaay bi ak li di ko ëmb yépp yëpp dara jotu leen pour muy mun a am yeneen césarienne bu fekkee yaramam àttanu ko loolu du benn problème mais toujours gynécologue bi mooy décider te képp ku am césarienne balaa ngay am doom il faut nga taxaw ñaari at loolu moom lu am solo la parce que il faut nga bàyyi góom bi wër il faut nga bàyyi yaramu jigéen bi delluwaat ni mu meloon loolu lu am solo la waaye nombre de césarienne bi tout dépend de ni bu njurukaay bi ak li ko waree nekk. Mhm. loolu moom chaque fois gynécologue bi moo lay jox ay ndigal ah war nga mën a yem fii wala mën nga continuer encore. Mhm. leneen li muy laaj mooy mbirum grossesse ak hypertension artérielle. waaw loolu tamit lu xaw a bare la parce que mbirum hypertension tamit euh, ni jabet ak yeneen maladie cardiovasculaire yi ngeen di dégg lu nga xam ne lu xew la donc ëmb tamit bokk na ci euh, hypertension nag ci ëmb. dafa am xeet yu bare au ñeenti façon nga xam ne bokkuñu ay ni ñuy manifester wu bokkuñu tamit ak conséquence am na ay hypertension yi nga xam ne ëmb bi moo koy indi maanaam jigéen gi mosul am tension mais le fait mu ëmb mooy indi tension bi loolu lañ koy seetlu nag si ëmb yu njëkk yi souvent lay am te am na benn forme bu mu nga xam ne buñ koy wooyee si boobu mooy bu gën a bi ci ci ñun bon mun na nag fekk jigéen gi am tension balaa muy ëmb mu daal di jël ëmb ci biir tension loolu mun na am tamit am na yu nga tension yu nga xam ne ci diggu ëmb bi lay dem ba feeñ donc am na xeetu tension yu bare mais bu fekkee jigéen gi bu bu ëmbee bu teelee dem di commencé visitam ni ñu ko ko digale maanaam balaa ñetteelu weer bi dem na seeti sage femme wala dem seeti gynécologue wala médecin bi ñu koy suivre normalement ñun am nañu ay pexe pour teel a xam ñi nga xam ne dinañu mën a def tension am nañu pexe pour teel a faj tension bi am nañu pexe tamit pour prévenir tension bi donc loolu yépp euh, lu muy laaj mooy nga teel a dem kër docteur. Mm-hmm. commencer def say visite suñu auditeur bu njëkk nee na moom dafa defoon opéra ku def opération GU ba ñu dindi benn trompe bi est-ce que bu jëlaatee beneen grossesse six mois après est-ce que c'est à risque. waaw alors li ñuy wax GU maanaam mooy ëmb bu nga xam ne dafa développé wu dafa lalu toog ci butit ci tromp bi te loolu du place am parce que trompe bi lu sew la ëmb ci biir butitu njurukaay bi la war a nekk bu demee rek ba yokku dee éclaté loolu lu ñuy wax GU. Mhm. Euh, mais jigéen ñaari tromp la am ak benn trompe mun nga ci ëmb mais ëmb bu normal la mais mooy ni ko waxee rek ëmb boo gis bu fekkee dañ ko topp normalement loolu normalement warul ci mun a am jafe-jafe wala bu fekkee gis am na jafe-jafe dinañ ko teel a gis donc mënuñu ne ne grossesse à risque la mais ñun ci suñu kii dañu ne peut-être grossesse précieuse mais ban grossesse moo nekkul grossesse précieuse. Mhm. ban grossesse. donc yëpp la ñu war a suivre. yëpp la ñu war a suivre. de la mhm. même manière. waaw euh, balaa ñuy ñëw ci euh, ouverture centre paiement bi nga xam ne ñu ngi koy yëgle Sénégal ca hôpital Dalal Jàmm professeur sànq ba tey dama lay dégg ngay wax ay walax jaan maanaam spermatozoïde yu néew néew doole est-ce que dafa am rapport ak dundi dundinu nit ki le fait que ay spermatozoïde dem néew est que. dafa lié avec son alimentation mode de vie am walla daf koy judduwaale. question bu am solo la effectivement euh, walax jaan bi niñ koy defaree dafa laaj certaine hygiène de vie am na lu nga xam ne wóor nañu ne baaxul ci walax jaan bu njëkk bi mooy tabac tabac façon bu nekk. Mm-hmm. parce que léegi dañu am ay yenn façon yi nga xam ne dañuy foog ne mais tabac. Mm-hmm. ci boppam. lu nga xam ne baaxul dara dara ci walax jaar loolu foog nga xam ko alcool tamit baaxul am na yenn liggéey yu nga xam ne saay bu ci nit ki nekkee te mu am tàngaay ci biir liggéey bi mooy ñi di liggéey ci ay boulangerie ay four wala gis nañ ko sax ci chauffeur yi nga xam ne dañuy yàgg toog di dawal foofu bu fekkee dafay tàng tamit dina indi jafe-jafe alimentation am na ci ba dégg ngeen sax ñuy wax mais am na yenn lekk yi nga xam ne euh, on se pose la question est-ce que amul benn effet ci euh, walax jaan bi donc am na yeneen xeetu tamit substance euh, yi nga xam ne fi mu ne ni ñu ngi koy nemmeeku parce que li ñu seetlu ne mooy bu ñu jëlee cinquante ans diiru cinquante ans doole walax jaanu góor yi d'une manière générale dafa wàññeeku de moitié ba ñu ngi nee suñu bopp bu ñu continuer nii fu ñu jëm. Mhm. loolu moo tax ñuy ñaax ñi xale yu góor yi hygiène de vie bu baax parce que loolu mën na impacter bu ëllëgee tey lu ñuy gis lu bari ay couple yu jeune am problème wala jaan loolu ko donc il faut ñu seet ñu gëstu xool bi ñu nekkee xale ba bi ñuy sëy ñu daal di xool seen hygiène de vie li ñuy lekk ak loolu parce loolu am na solo. Mhm. waaw euh, ñu dégg tamit que ne euh, Sénégal dafay waaj a ibi benn centre paiement ci hôpital Dalal Jàmm euh, ñu bëggoon xam lu bari ci projet boobu lan moo ko lal ak kañ lañ ko mën a séentu ak lan lay indi en tout cas ci li nga xam ne tey moom lañu ñu jàppee ni problème de santé publique muy infertilité. waaw comme ni mu ko doon waxee suñu autorités yi tooguñu et mois d'avril bi ñu mujjee. Euh, monsieur le président de la république euh, gis na loolu nekk na problème bu rëy mu daal di décider jàppale ñu pour ñu ubbi le premier centre de prise en charge de l'infertilité en centre publique loolu nga xam ne amul sax ci suñu région ouest africaine parce que li mu leen jot wax yépp wax naa leen ne lu ci ëpp ci structure privée lañ koy def mm-hmm. te du ñëpp ci mun jot donc mu daal di teg loolu comme projet prioritaire au niveau de l'hôpital Dalal Jàmm jox ñu ndimbal pour ñu daal di taxawal benn centre ñu boole ko ak euh, centre bu nekk greffe de moelle osseuse maanaam feebaru deret bu mun a faj feebaru deret bu suma naataango professeur Fatou Samba Ndiaye ñaari projet yooyu daal mu daal di leen dimbali bi ñu jotee xibaar boobu nag ñu daal di ci jublu ak ministère de la santé euh, commencé def démarche administrative donc ñu ngi ci euh, xam nga ne loolu il faut am tabax. Mm-hmm. am équipement équipement yi moom équipement yu sophistiqué la mais euh, c'est en très bonne voie waxtu bi mu lay wax nii. Euh, ñu ngi ci affaire lu ñuy wax tabax bi génie civil bi ñu ngi ci procédure bi équipement bi tamit ñu ngi ci procédure bi te am naa yaakaar puisque loolu nekk na lu nga xam ne euh, monsieur le président de la république daf ko teg comme priorité euh, du mun du yàgg noonu sénégalais yu bare mun a jot ci lu nga xam ne ba bi mu lay wax nii tey ñu bare mun nañ ci egg. Mm-hmm. ndax li mu jàpp te seetlu nañu ne bu ñu ko defee ci hôpital publique dafa am ay coûts yu nga xam ne dinañ ko mën a wàññi wàññi bu baax te commencé nañu def étude de coût pour xool nuñ koy wàññi te presque egg nañu ci li ñu jot a def pareguñu mais presque mois moitié bi mun nañ ko wàññi. Mm-hmm. waaw parce que euh, dañu nekk dans un environnement une structure publique ñu ngi jéem a def tamit encore ay effort pour côté garab bi te vraiment ñu ngi ñaan ndimbal côté boobu. pour que garab yi wàññeeku parce loolu mooy lu gën a cher ci mbirum euh, PMA mais am nañu yaakaar ne euh, du sore euh, sénégalais yi yu bare mën a jot ci loolu parce que gis nañu ne problème mu santé publique la wax nañ ne souffrance bi muy àndi naqar bi muy indi mettit bi muy indi méngole nañ ko ak mettitu ñi am cancer donc mm-hmm. loolu nga xam ne lu am solo la mais dafa nekk mbir bu nga xam ne comme dafay laal sëy dafa nekk lu nga xam ne kenn du ko waxtaanee fu nekk te même couple yi jot am doom ci loolu xam nga ne duñ ko publier loolu moo tax ñu bare foog ne amul loolu fii Sénégal mais euh, Université Dakar am na ñu mu formé muy côté laboratoire muy côté gynécologue côté urologue yi nga xam ne loolu la ñuy gëstu donc tey bu fekkee état bi nag dimbali nañu ñu am yaakaar bu bare pour couple yi nga xam ne mot na douze ba quinze pour cent ci suñu consultation. Mhm. loolu am solo la maanaam chaque dix personnes bu dugg consultation am na ci au moins benn bu nga xam ne loolu lay jooytu. loolu lay jooytu mhm. euh, ci suñu gëstu tamit gis nañ ne yow yaa war a euh, piloter centre boobu professeur Moreira donc euh, mën nañu xam bon. comme parce que comme ni ñu ko waxee problème de santé publique la peut-être ñi nekk ci jafe-jafe bi te seeraay bi xëy na wàññi seen danga xëy na yàqamti nañu donc à quand peut estimer la matérialisation kii boobu noonu centre bi en fait euh, déjà xam nga maa ngi doon wax ñetti technique la mhm. muy insémination fécondation in vitro ak micro-injection bu njëkk bi insémination commencé na dalal jàmm depuis année année bi janvier bi donc mais loolu du pour ñëpp expliqué naa ñi nga xam ne war nañ ko mën a am mhm. mais ñun boobu ci suñu sañ-sañ ak ndimbalu suñu directeur ñun commencé woon nañu def insemination hôpital Dalal Jàmm parce que euh, fi ma jóge woon maanaam maternité la teg dañu jotoon commandé ay tuuti matériel waaye bi mu jotee ñëw boobu fekk ñu affecté ma Dalal Jàmm suma chef ci baaxaayam daal di ma yónni matériel bi suñu direction Dalal Jàmm te di teg ci loxoom tamit ñu mën a commencer suñu laboratoire pour def insémination loolu déjà am na te euh, ñi ko war a jot mën nañ ko jot mais il faut ñu ñëw consultation ñu seet ne ñoom loolu la ñu war a am. Mhm. beneen bi mooy fécondation in vitro ak micro injection loolu day dugg ci centre bi ñu nara a taxawal euh, incha allah fii Dalal Jàmm mais loolu waru mën a yàgg mais il faut ñu tabax. Mhm. jënd équipement tout dépendra léegi ci vitesse d'exécution mais loolu nekk na priorité bu ministère de la santé ak service compétent yi ñu ngi siy jublu mhm. te yaakaar nañ tam ne xëy na euh, bés bu sottee ñuy ñaan mu bañ a yàgg di ngeen dinañ ci def communication bi ci war parce que sànq euh, wax nga ko parce que constaté nga ko ñu bëri bu ñuy ñëw ci yéen c'est parce que dañuy wër fu ne mhm. jaar ci tradipraticien jaar fépp fu ñu warul jaar ba mujjee fa ñu waroon dooree donc mu nekk un problème de communication toujours ah boo xam ne mu ngi fi ba tey ak fajkat yi dafa mel ni euh, ñemewuñu les médias alors que c'est un service de santé publique le fait que ñuy communiquer pour éviter que ñi warul communiquer seen place di wax tamit à travers les médias est-ce que tamit jotul ngeen di nangu di dem comme ngeen ko defee nii di gën a wax nit ñi di xam lu fi am ak lu fi amul fan la ñu war a jaar fu ñu warul jaar. waaw dañu toll fu nga xam ne jamono dafa toll fu nga xam ne ñun mii nga xam ne dañu doon toog suñu biir salle de consultation il faut ñuy génn di wax ak nit ñi parce que li ñuy wax information éducation communication lu am solo la dafa ñuy dimbali. Mm-hmm. loolu mooy mën a tax nit yi war mën a teel a ñëw ñu teel saytu seen problème mun koo lijjanti. loolu moom lu am solo la te vraiment ñun tamit ñu ngi ciy góorlu suñu association bi association des gynécologues obstétriciens mooy ASGO. nga mhm. xam ne kuréel bi boole gynécologue bu Sénégal bi yëpp ñu ngi ciy def tamit ay jéego yu bare ci maanaam communication bi loolu moo tax biñ ma invité ma daal di sawar a ñëw parce que lu nga xam ne dañ ko waxtaanee lu bare suñu biiru association pour ñuy gën a dem ci média yi wax ak nit ñi. sensibiliser leen ci seen problème de santé. Mhm. loolu moo tax ma bëgg a remercier waale suma euh, président professeur Alassane Diouf moom mooy président actuel bu suñu kuréel bi. Mhm. kon nag comme ni ñu ko waxee woon euh, ak euh, auditeurs yi xëy na di nga fi bàyyi benn numéro boo xam ne képp ku bëgg orientation wala xam fu mu war a jaar ba àgg ci yow mu mën a sotti. waaw amul benn problème ñun ñu ngi dalal jàmm maa ngi dalal jàmm ak suma équipe du man mhm. rek. sama gannaaw am nañu ñu ngi pour les prises de rendez-vous. Mhm. nga xam ne képp mun na mun nga jot numéro bi woote ñu jëlal la. rendez bu la arrangé. Mhm. dinañ ko fi bàyyi léegi bu émission bi jeexee donc professeur Moreira euh, dama lay bàyyi nga tàggatoog auditeurs yi euh, ci wàllu sensibilisation ci lépp loo xam ne en tout cas laale seen wér yaram surtout lu soxal tey ci thème bi ñuy waxtaanee ñu bàyyi ko seen xel te xam ne lépp daal bu ci yàlla àndee ci mbirum docteur la ñu war a jiitoo ci lépp. door a dem feneen. effectivement dama bëgg a premièrement féliciter góor yi. Mhm. parce que seetlu nga ne ci émission yi góor yi ñoo wax. waay te loolu vraiment lu nga xam ne euh, dem ci kontaan euh, di leen gën a ñaax ñuy gunge soxna yi ñu ñëw c'est vrai que dem maternité mbirum jigéen la góor yi sawaruñu. Mhm. waaye ñun dañuy góorgóorlu pour def de telle sorte que bu ñu ñëwee ñu nekk à l'aise donc dama leen di ñaax. ñoom ma leen di féliciter d'abord parce que ñu seen participation ci émission bi di leen gën a ñaax ñuy gunge seen soxna. Mhm. pour paj bi gën a gaaw. te ni mu ko waxee mbirum am doom dafa am diir fi nga war a dem teel koo xam nga jublu fa ñu jaar di la jàppale loolu laa bëggoon wax. Mhm. kon nag dama lay jaajëfal ci sa disponibilité professeur euh, euh, Philippe Marc Moreira di jaajëfal Assane suñu technicien ak auditeurs yi nga xam ne jot nañu dugg di baalu nag ñi bëggoon dugg te sottiwul di leen jox dig daje talaata bi di ñëw ci beneen thème ci allo docteur. Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Valda Afrique moo leen doon may seen émission Allo Docteur